salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina wa mawlana muhammadin fatih wa alayhi wa ala alihi wa sahbihi wajal bi jaahihi salih mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare di ci jiital nag sëriñ Muntaxa Mbàkke moom mi nga xam ne moo toog ci jataayu cheikh naa cheikhul xadim ñu ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam lool te wéral ko ba mu eggale naa li mu fekk yëpp ba eggale naa li boppam te ñu ànd ak moom waaye di nuyu nag jëwriñu kër gi di Daaru Xuddoos Sëriñ Ahmadou Makhtar Mbacke moom mi nga xam ne moo toog ci jotaayu Cheikh Moustapha Al Karim di ñaan suñu borom guddal fanam te wéral ko tey li ci moom nuyoo njabootu Sëriñ tubaak gépp ngir xam nañ ne Cheikh Mouhamadou Moustapha moo njëkk a wuutu Xaadim Rasuul di leen nuyu nag yéen ñi nga xam ne yéen ñu topp ci euh, site bu am solo bi seen info seen info ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sargal di leen sant bu baax ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy def ngir askan wi gën a mën a jariñu tey na ngeen ñëw ci ëtt boo xam ne euh, siyaar si ñu seet si ñu ñu xool ba xam euh, naka la fi màggal gi doxee muy ëtt boo xam ne nag ki nga xam ne moo ko sancoon muy sëñ bu Dieng dafa amoon taw féexi euh, fekk sëriñ Touba fële ca Thièyène Jolof jébbalu ci moom. kon dafa jébbalu ci sëriñ Touba bi mu ñëwee nag sëriñ Touba fonkoon ko lool muy borom fit borom xam-xam borom jom ko amoon alxuraan ba amoon taw féexi sax sëriñ bi yónni ko Gabon. xam nga sëñ Tuubaa def na euh, bisub tey bii nga xam ne moom la ñuy màggal muy 18 safar euh, sëriñ bi euh, dafa jóge woon fii tubaab bi exil ko loolu dafa gudd ñu bari wax nañ ci duñ ci ñëw lu bari waaye exil bi ma ngi ko defoon Gabon def fa juróom-ñaari at yu teg ay weer yoo xam ne ci ay tànk-tànk ci ay fitna ci ay jafe-jafe te mission bi waru woon a sax wax sëriñ bi nee nañ war woon a sax dàq yoo wala muy def dara wala muy geesu wala dara. loolee nag ba mu jógee Gabon ba ñëw dafa taamu woon ko fa delluwaat jëlil ko bagage ñu am tawféex suñu maam ji nga xam ne mooy sëñ bu Dieng moom moo demoon foofee jëli bagage kon ku sëriñ Touba liggéey loola bi mu ñibbisee nag mu am lu mu ko lu ko ca faggul muy sëñ Abibou moom bi mu nekkul loo bëgg ma defal la ko neewu ko dama bëgg a seex de wala dama bëgg mbooloo waaye dana ko dem na ma ku ma soob sëriñ bi ne ko defal nañ la ko daal di bind ab jox ko nga xam ne lettre boobee bari na ñoo xam ne bëgg nañ koo teg bët waaye bari ñu ko teg bët moom sëñ bi Dieng moomee nag moo jur ku ñuy wax sëñ Thierno Dieng Thierno Dieng moomee moo jur Moustapha Dieng mi nga xam ne moo tax ngeen ñëw fii ci kër gi euh, Moustapha Dieng moomu kon ci noonu la bokk sëñ Tuubaa waaye Moustapha Dieng moom mii nag wax dëgg yàlla soxna Aminta mi nga xam ne moo ko jur euh, sëriñ Arif Lo moo ko jur sëriñ Arif Lo sëñ Siré moo ko jur te sëriñ Siré Lo euh, sëriñ Tuubaa bi mu jógee ci géej gi Euh, sànna la jubali fa la woore weer wa ba ba mu jeex takk mu wari fa kon am na weer gane ji maam yi Moustapha Dieng mi sëñ Moustapha mi ngeen di waxal kon dafa mel ne bu ñu doon séddale yoon wi euh, la ñu sëñ Saliou waxoon kon day mel ne sëñ Moustapha Dieng moom da ciy jël wàllam kon kilifa la ku bokk ci yoon wi kuy ma am maamam gërëm am ngërëma sëñ Touba la maamam beneen maamam boo xam ne ñu koy wax sëñ Birama Tani ndax soo amante loo mii soxna Xadi Sise mi ko jur sëñ Birama Tani moo ko jur sëñ Birama Tani bokk na ci ñi daan ñawal sëriñ tayri sëñ Tuubaa kon kooku kon xam nga ne ku ku ku ku bokk ci yoon wi la looloo tax nag gis ngeen bi ngeen ñëwee bés bi noonee nga xam dañ ci am tew feex ni ko sëriñ bi santaane ni ci bégal euh, taali mbégte mooy sama mbégte na nga ma sant la yàlla ñu am ci ay wàll sëriñ Moustapha nag bu jubsee mu ànd ak soxnaam su baax si nga xam ne muy soxna Badiane Seck euh, maa ngi koy nuyu bu baax au passage di ko ziyaare bu baax muy koo xam ne euh, ku ubbeeku la nga xam ne lenn rek mooy naqaram moom loolu la koy naqari mooy mu jox la lekk nga bañ a lekk mooy koo xam ne moom balaa am mbégte dëgg dëgg dëgg mbégteem soxna Badiène Seck mbégteem dëgg dëgg dëgg mooy euh, di berne li ñi di togg di jox bañ na ko ci loolu rek la yëngu moom foo ko fekk mi ngi gëstu ci wàllum togg ci wàllum bernde ba nga xam ne mu jàppale sëñ Moustapha ci côté boobu ndax moom it wax dëgg yàlla bu ñëwee fii ci bés bi da koy jiitu une semaine avant ñu ngi tàmbaloon berne yi jiitu altine mu jiitu si fi euh, andi ay xéewal yoo xam ne da koo fàggu andi ko fi di ko jox euh, taalibe sëñ Tuubaa yi kon kooku ñu ngi koy ñaanal euh, suñu borom dimbali ko guddal fanam te wéral ko ba li nga xam ne moom la ci séentu lépp ndax sëriñ bi moom mooy fayal boppam képp koo xam ne defal nga ko ci lu baax lu mën a doon moom moo moom moo yor kuddi gi di séddale kon yaakaar naa na ngi rafet jot ci côté boobu gaa yi sant nag yu nuyu baax soxna Aminta Lo Arif mi nga xam ne mooy suñu waajur te ne fi te moom it wax dëgg yàlla mu fàkkoon pàkk bi doon jàmbaar joo xam ne moom it euh, ku bëgg lu baax lool lool lool te mën a yaatal njaboote ñëpp nga xam ne moom it ba léegi euh, yàlla na ko fi yàlla gën a yàgg lool mag la waaye mi ngi ci waar yu ba nëgëne kon lépp moom la ndax mooy bii fàkk kër gi nag wax dëgg yàlla euh, booba dafa mel ni melugul woon nii mag ñi lépp lu naqari mu toog muñ ko fi muñ fi lu ne ba lii ñëw tey jii kon moom it ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàgg fi loo yàggal ko fi te wéral ko kon daal màggal gi euh, noonu lañ koy doxale di ñaan di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan euh, suñu borom boole ñu dimbali di sant nag njabootu euh, sëñ abi Abibou gépp nag ci mag ñi nga xam ne ceer Thierno moo ci mag ba ki nga xam ne moom moo ci gën a tuuti di di Cheikh Mbacke di caat mi waaye soxna Aminta Dieng mi nga xam ne moom ngeen àndal muy taawu sëñ Moustapha moom it euh, muy ku ku am solo ndeysaan xale bu yaroo yaroo yaroo allah nga xam ne ñëpp ñun ay baayam lañu waaye kaf tonto di ñëw di kaf di ubbi euh, moom ñu ngi koy ñaanal suñu borom def ko tawfeex ñu ngi leen sant bu baax gërëm euh, suñu borom mi nga xam ne mooy borom jàmm yàlla nañu may jàmm ñi nga xam ne duñu del jàmm mukk wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. yàgg fii ñëw di màggal si saa yu nekk di ànd ak sama sama njaboot. Euh, wax dëgg yàlla saa yi ñu fi ñëwee bégte rek lañ fiy jëlee famille la boo xam ni yaatu nañu te képp fi ñëw dinañ la yaatal de telle sorte que di nga yéeg sa bopp ci ñoom te ñoom yéeg nañ ni lépp lu ñuy def Serigne Touba tax ñu koy def ñun daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm famille la boo xam ni man ak sama njaboote fii ñëw at bu nekk dinañ fi ñëw màggal si mais saa yi ñu ñëwee suñu kër la ñuy nekk. ñi nekk suñu kër dinañ ñu toppatoo ñun sa dañ ñuy toppatoo bi ñu rus ñuy foog ni ñun ñooy gën ci gan yi ñuy yore fekk ndekke am na ñeneen ñu nekk ci yeneen i néeg yi moom la ñuy yéeg lu dul sant leen di leen gërëm di profité ci occasion bi di leen ñaanal gudd fan ak wér parce que lii ñuy def ni yàlla na leen ko yàlla fay fay leen seeni njaboot parce que ku yore doomu aadama jox ko mu lekk jox ko mu naan jox ko mu tëdd vraiment yàlla ci boppam moom la santaane surtout ci bés bu toll nii bésu sëriñ bi moo xam ni moom mën nañu màggal ko ñoom daal màggal nañu ko yàlla na leen yàlla may gudd fan may leen wér te fay leen parce que liñ ñuy defaral ñun mënuñu leen fay yàlla na leen yàlla fay. Aminata Lo Dieng ñu ngi lay nuyu. ñu ngi di am mbégte ak contentement di la dalal suñu plateau ni ñu ko baaxoo di doxant ci kër euh, kilifa yi alors tey nag euh, xanaa di nga wax rek nag ngeen euh, féete seen màggal. donc màggal bi ñun yàgg nañu ko féete. Mhm. te si temps yu ñëkk njëkk yi nga xam te ni kër yi bëri kër yi bëri woonul Touba. Mhm. donc kër yi mooy kër yi njëkk Touba. kon mhm. ñi nga xam ni dañ fi dal tey seen maamaati mi maam dañ fay daloon. léegi nag Euh, bu ñu ñi commencé jàpp ñu ay mbokk di fi dal si euh, saa su màggal gi ñëwee xam ne ni fii lañuy ñëw nekk si jàmm dalal leen toppatoo lañ bañ nekk si lépp liñ soxla. Mhm. dañ koy tàmm. macha allah tey sam tàmm na toppatoo màggal gi mook sama yaay dañ ci sonn bu baax. Mhm. mën nañ tout euh, Dakar lañ koy njëkk a préparé traiteur yi lekk yi yëpp foofu lañ koy defaree yor seen budget budget bi mën na dem de 7 à 8 million Euh, ray seen di nag lépp ngir mbégte kër gi bëgg a kontaanal ñëpp koñ for rek dinañ ko jàppale waaw. tey boo ñu doon fàttali rek kër gi ñuy ñëw ak euh, plateau yi añ yi ak euh, traiteurs yi comme ni nga ko waxee seen togg yi añ yi. lépp ngir bës bi kër gi mooy gën kër. kër kan la fii mooy kër kan. kër gi kër siñ sama sama papa ko tabaxal sama maam. mu mhm. jigéen. Mhm. muy amilo sama turandoo bi. macha allah. Amilou sama turandoo bi. madame Dieng madame Dieng looy wax ci moom. madame Dieng mooy doomu euh, sëñ Moustapha Seck. macha allah ñu ngam ñoom tamit màggal gi seen kër lu mag lañ koy def yor seen di nag yor seen di traiteur. Hmm. ñoom ñëpp yor seen di gan leen toppatoo bu baax a baax a baax. Hmm. waaw. de la part de euh, Forever ñoom itam ñu ngi kontaan bu baax a baax ci euh, teraanga ju am solo ji taar fa kàlla. Euh, tey boo ñu doon wax dëgg-dëgg solo si bës bi ginnaaw euh, taraanga ji bernde ji euh, loolu yëpp c'est important. dëgg waaye wax ñu tuuti tuuti solo si bës bi. Hmm? solo si bés bi tey lan moo waral ñu naan màggal ak moo ko wote. dañ naan murit bu ne bu màggal. Hmm. war nga mën a gis àjjana. incha allah màggal soo ko màggalee moom jaar ci yoon suñ borom day kontaan ci yow. moo tax nga gis tey ñëpp ñu ci sonn. ñiy mhm. fanaan si yoon wi mhm. ñii di jóge fu sori ñii di jóge ci région yi dajaloo ci kër gi ñun ñëpp àndandoo kontaan lu metti metti ñëpp dinañ ci mujj kontaan ndaxte mhm. dañoo xam ne ne màggal mënut a ñàkk ci dëkk bu sell bi macha allah am na solo trop waaw mu mel ni tey bu ñuy seetaan image yi ak image yi ni mu yànjee hmm, taarafakàlla euh, tey boo leen boo leen boo leen boo leen defee lu ni mel ni teranga ji day yaatu waaw waaw gis nañ loolu lay wax ci loolu moo ni maanaam même bu ñoroon suñu gane bopp di leen toppatoo nit ku ñëw ñaan ñu lekk wala duñ la ne amuñ luñ la jox. buñ gis nañ ne dañuy dañuy jël sax ay ay tranga ko dugal ci biir dëkk bi. waaw waaw loolu gis nañ ko. dinañ dinañ gis ku romb ci mbedd bi nii dugg di laajte ndox ñu jaar ko jox ndox jox ko lekk jox ko lépp li mu soxla bu amul fu mu dal ñu may ko fu mu dal. Hmm. toppatoo jaral na ko ba sam papa fi mu toll nii ci biti lay fanaan bàyyi gan yi néegam bi. ndax bëgg nit ñu kontaan ndax bëgg toppatoo ndax fonk nit fonk màggal gi. am na solo euh, tey tey boo amoon kàddu yooyu jàllale message comme message lan lay doon. message de conseil euh, comme message euh, lépp lu baax day fay. Mhm. loo def tey ëllëg suñ borom dina la ko fay. loo sonn sonn ci tuuba mhm. ñàkk loo ci mën a am après. Mhm. comme li ko tubaab bi naan c'est un bien pour un mal. li nga gis nii ñëpp nekk ci kër gi ñëpp àndandoo kontaan ñi ñii toog di reer ñii di toog di añ. loolu lépp da cee bokk ci màggal gi mhm. ay coono dana ci bokk nag mais bépp coono mënul fexe ba mhm. tax duñ naan màggal gi neexul mhm. màggal gi daal fu ñu fekk rek dina naan dina neex dina neex te jàmm kese mooñ ci fekk macha allah kon lépp lu ñu mën yàlla na fi sama papa ak sama yàgg ndax ñu leen di ñuy gën a mën a teral waa Touba di leen gën a mën a jàppale ndax xam naa ni sonn nañ ci màggal bi torop te yàlla maam mi nga xam te ni moo yor kër gi moom tamit yàgg fi incha allah soxna amiloo sama turandoo bi macha allah waaw ak suñu gan di continuer di ñëw. am na solo am na solo trop taar fakàlla soxna Aminata euh, Lo Dieng ngeen di euh, àndal taar fakàlla ci waxtaan bu am solo boobu. alors euh, nii lañ ko fas yéene defee bu ñu génnee fii dinañ del wan yeneen yi yeneen i teraanga ci yeneen i këri diine yi kilifa taar fakàlla am na solo alors lan ngay tàggatoo yàlla nañu fi yàlla bàyyi. ñun ñëpp mhm. yàgg fi di gën a màggal màggal yi di gën a neex. macha ah, am na solo taarfakala. am way leen woy leen dañu ñu safoo ñu leen di safoo 30 000 abonnés du ay caaxaan tey ji atteindre nañ ko taarfakala alors Seneinfo International lay wax si ñoom Seneinfo International. dama télé bu investir la. macha allah télé boo xamante ni. Mhm. dañuy. duñ duñ duñ choisir maanaam taxaw di dem liggéeyal pour yomb yi. dañuy mm-hmm. génn seen bopp. Mm-hmm. extraire seen bopp ci boîte bi war a def def liggéey bu rafet. Mm-hmm. dem di dox di wër di xool kër yi leen gën a. captiver. di fa interroger ñi ñi di jël seen temps di ci sonn kon xam naa ni am na solo bu dëgg la chaîne macha allah ñu ngi leen di sant di gërëm Abdel ma nekkoon ci euh, caméra bi euh, ci technique bi aussi ñu koy jaajëfal baax a baax. alors euh, dañuy woy nag voilà euh, dugg ci biir kër gi wane daal di wane teraanga ci. waaw am na loolu émission bi jaajëf aja cinq minutes la woon rek yaa na am na solo صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر